Je pense que l'enregistrement s'est très très très bien passé. C'est le début de la campagne. Le souhait le plus ardent, en tout cas mon souhait, c'est qu'on fasse des élections dans la paix, dans la transparence et que les programmes puissent rivaliser et permettre aux Sénégalais de choisir celui dirige. Vous êtes en train de, de construire tout cela, présage un peu de ce qui est en train d'être fait euh, au Sénégal, que nous allons poursuivre, que nous allons consolider pour l'intérêt du Sénégal et dans la paix, dans la sérénité. Je pense que c'est l'aspect le plus important. ci boo ko seetee boo ko seetsee mu teral la da nga ko war a sant gërëm ko donc di nuyu di leen sant tout le personnel au RTS di ci jiital seen directeur général. ñun nag ñu ngi jëm ci élection li ñuy ñaan yàlla mooy ñu def élection ci jàmm ak salaam nañ ko doon defee démb ak barki démb Sénégal réewu jàmm la Sénégal réewu teranga la ñu fexe bu ñu bu ñu yàlla dimbale ñu jot réew mi mën a yokk naataange gi fexe doomu Sénégal bu nekk li nga xam ni sa cër la sa wàll ci Sénégal nga jox ko ci. ñun sunu campagne li koy wutal ak yeneen yi dafa am ci lu ñuy déparé d'abord ñu ngi ci biir état xam nañ lii état kooku benn ñaar ñu ngi liggéey président Macky Sall gis nañ li mu liggéey lii nga li ñu war a def mooy li tubaab di wax consolider lépp lu fi nekk ñu yokk yokk ko fexe ba mu gën a ñoŋ mais surtout fi ñuy xaar mooy na gën a gaaw na gën a taal. am solo mooy xale yi nga mën a utal liggéey ci lu mu gën a gaawee kooku. incha allah doon na loo xam ni priorité la ci juróomi at yi ñi ngi ñëw